Sonko ay waay dimbali ma xool ma waay. kan waay Sonko dimbali ma xool ma waay. ah dimbali ma ah, xool ma Ousmane Sonko Ousmane laa tudd. Cheikh Bamba Diop mu wax bu ko defee ministre daal di jox présidentiel asalaamaaleykum Darou Mouhty asalaamaaleykum département de Kébémer asalaamaaleykum doomu daara yi ñu ngi nuyu doomu daara yi pour mën di nekk ci Sénégal di leen wax candidat moo ñëw ci seen kër Darou Mouhty متيسر وتمييز بين الفضة والحدة متيسر borom ma xaama nee na suñ dëkk bii am rama tudd fi tantan lu am rama tudd fi tantan lu daaru musi xam ngeen léegi kan mooy borom daaru musi xam ngeen kan mooy borom ñaar fukki at ak ñaar ci réew mi dara nga naan def leen ma député ngir ma defar réew mi kooku leen a bëgg a nax lànk leen waaye ku gis mobilisation bi ni mel tey xam ne Daaru Musi yow daga fajar Daaru Musi dajale nañ seeni bàccukaay bisu mbàkki bi rek la ñuy xaar Daaru Musi nag bokk na ci dëkk diine yi nga xamante ne ñoo njëkk a adopté projet bi ànd ko ak sunu Serigne Serigne Abdou Mbacké waaye ànd ko ak man mii Cheikh Omar Bamba Diop ànd ko ak Pape Mamadou Seck ànd ko ak le docteur Cheikhouna Bey ànd ko ak soxna Awa Mbacké ànd ko ak honorable soxna Daba Wañaan waaye ànd ko ak suñu frère Serigne Mbacké Lo DG du groupe ñoo ngi préciser ni responsable yëpp ku nekk gis nañu sa taxawaay gis nañu sa mobilisation gis nañu sa détermination pour la grande victoire du 17 novembre dafa fekk ni doo mën a jox ñëpp kàddu moo tax en général candidat yi rek la ñuy jox kon kan ngeen doon xaar kan ngeen doon xaar ci Daaru Muxti kenn mu dul tey waa borom boolu ceeb boole ñun añaguñu ne dëcce ñu ngi nuyu waa dëkk bi yëpp ndeysaan di yital ci nuyoo bi Serigne Bassirou ko ziar bu baax a baax di ziar kilifa diine yi fi ne ndax Daaru Mooti liy màndargaam mooy dëkku diine la orma googu ñu jox dëkku diine gi nag moo tax bi ñuy dugg ci dëkk bi sax dañoo waxtaan ne lii ñuy faral gis yeneen dëkk yi muy animation dañ koy far dakkal ba génn dëkk bi di beral loxo nag sama xarit sama kilifa nga xam ne mooy sama tradition ak dëkk bi muy sëñ Abdou Mbacké ma koy nuyu bu baax di ko ziyaara di ziyaara njaboot gi jamono campagne nag dafa xaw xat du jamono joo xam ne mun nga ànd ak gàngoor gu toll nii di wàcc ci ay kër kilifa diina loolu bokkul ak orma ñu bëri nag ñi ngi daan bi ñu faloo ba léegi gisaguñ ma daaru mooti loolu di ma wax sëñ Abdou rek li ko waral lu simple la mooy li ma namm ci daaru mooti xajul ci ñëw ñëw bu gàtt ma ne ko su may ñëw dinaa ñëw ajjuma incha allah jullee fi ajjuma gontoog waa Daaru Muxti fanaan fi yendu fi samedi bi yëpp ba ngoon ji doog dellu loolu nag lu ma dig waa Daaru Muxti lépp la te bu soobee yàlla bu élection yi passé dinañ ko def incha allah des nag Daaru Mooti dafa nekk ci xolu combat bi nga xam ne moom la Pastef xeex ba egsi fi mu yegsi nii dëkk bi waa dëkk bi rawatina yéen ndaw ñi yàgg ngeen génn taxaw jàkkaarloog régime bi fi newoon nga xam ne pexe bu ne def na ko pour faagagal projet bi yàgg ngeen génn manifester bari na ñoo xam ne ci doomu dëkk bi am na lu mu leen jural ci ñu jàpp leen yóbbu leen tëj leen ba lu bëri sax yàqu ci seen santé bu mën cee tudd Pape Mamadou Seck mii nga xam ne moo ñu njëkk andi fii ci dëkk bi boobu kenn xamuñu ci Daaru Muxti kon Daaru Muxti dama bëgg ngeen xam ni place bi ngeen am ci suñu xol am ko ci projet bi du place bu ndaw te nañu dem rek ba ci kanam ci li ñu wax yëpp ci programme lu jëm ci tourisme religieux cité religieuse yi ñu defar ko defar bërëbu jaamukaay yàlla yi defar ay complexe yoo xam ne nit ñi dinañ fa mën a dal waaye jàppale daara yi nga xam ne ci lañuy ñuy defaree nit ñi defe naa kenn du ci ëppale Daaru Muxti Daaru Muxti tam di dëkku mbay wax nañ leen liñ ci fas yéene def ci mbay mi keroog bi ñuy def waxtaan bi fële ci Louga wala fële ci Thiès nga xam ne Darou Mouhty dafa bokk ci boog boobu waaye defe naa keroog bi ma waxee néewoon na ku dëkk Darou Mouhty te xam ne Darou Mouhty am na phosphate bu bëri bu fi ne boo xam ne passé nañ ko exploité mu doon njëriñu doomu Darou Mouhty doon njëriñu Sénégal balaa keneen di ci am ku jóge bitim réew kon suñu yéene ci dëkk bi bëri na te yéene ko mérito ci seen taxawaay la ca des nag la ca nag mooy génn massivement gis nañu liggéey bi ngeen di def dama yàgg wax ni Pastef parti mbooloo la parti jàppante la tey ñëw nañu fii seen coordinateur wax na introduire candidat yi candidat yi nga xam ne ki ci nekk ci liste départementale ak ki nekk liste nationale wax nañu délivrer seen message waaye waxal nañu yeneen kilifa yépp ndax maam Thierno ngi nii ci kilifa yi la bokk mënoon nañ ko jox kaddu waaye suñu bëggee jox ñépp kaddu day gudd moo tax ñu lemee ko noonu waaye sama message mooy Pastef benn bopp la ànd jàppandoo xaajandoo daana ndoox la ñu xam ci Pastef te xam naa di ngeen ko def fii Daaru Musti kon fa na woon la ngeen def élection locale législative ñëwaat làbbali ko ci élection présidentielle noonu la ñu nag bii pa Daaru Musti nag da ngeen di bokk ci ñi ñuy sas sas yu kawe yi que fi ngeen toll ci projet bi moo tax moo tax fii nu mu tuuti tuuti pour cent la ñu bëgg ci Darou Mousty te xam naa Darou Mousty nañu ko jox kon dem leen jëli carte électeur yi loolu moo ci des dimanche bii di ñëw xam ngeen tey dimanche dimanche bii di ñëw ci nëgëni si bu ñuy lim ba dimanche bi di ñëw bu ñuy lim bu ñuy yi nga xam ne ci Sénégal ñu ne Darou Mousty su mu ci ñett jiitu ñett yi jiitu ñu ngi leen di gërëm di leen sant gis ngeen li daje gis ngeen li daje Mbàkke ñu xaar naa ne ñoom ña ngay xaar depuis 15 heures. kon lu ma leen wax rek dinañ joxante dig daje ci lu yàggul ma ñëw passé ñaari fan yu mat sëkk Daaru Muxti ñu ànd waxtaan suñu waxtaan ñu ngi leen di gërëm leen sant asalaamaaleykum wa rahmatullah noonu le président Ousmane Sonko